on naa leen am gan ci biir studio bi ñu dalal euh, Papino Papino création Papino maa ngi lay nuyu. maa lay fay. wax waa yëkkati waatal micro bi bu baax nga wax ci kaw micro bi ñu dégg la. asalaamaaleykum asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp euh, Lisa dal jàmm. merci beaucoup Papino ha ah, di la jaajëfal xam naa ni instant yi nii bëri nga liggéey waye jot nga trouver tout le temps rek pour accorder ñu Papino création Papino lan moo la dugal ci mode. Euh, avant tout Lisa maa ngi leen di sant di leen gërëm ci invitation bi ma accordé. ñoo far yow tamit. voilà mais boo gisee li tax euh, boo ma nee li ma dugal ci mode. Mhm. histoire la ndax euh, mbër yi dañuy faral di wax ne ne man xaalisu mbër lañ ma ngéntee. d'accord. muy benn man tamit mun naa wax ni. Mhm. xaalisu ñëw mhm. dañ ma ngénte d'accord muy ñaar voilà mhm. ñetteel bi uh-huh. sama nijaay mhm. euh, ku ñuy wax Mbay Camara Mbay Camara waaw moom mooy sama magu yaay moom moo nekkoon décorateur RTS 1 mm, d'accord kon xam nga ni ba léegi boo demee sama yaay moo ngi toog foofu di ñaw ñu koy nuyu di ko ziyaar bu baax yaay booy voilà kon nag boo ma laajee lu ma dugal ci ñëw mun naa ne ci laa juddu. waaw maanaam da ngaa juddu fekk sa waa kër yëpp nekk ci sa famille nekk ci nga ne ci cabax. sama famille yaay. sa famille yaay. waaw sama famille yaay. d'accord ñoom pratiquement ñoom ñëpp ay ay tailleur lañu. Mm-hmm. sama magu yaay yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana ku ñu doon wax ami camara. Mm-hmm. moom tout le temps da doon dem màkk temps yi umra sax. Mm-hmm. mais dañuy dem ba foofu ñoom dañuy ñaw après une heure bu passé ñu ñibbi si hmm. indaale seen i machine amoon na fi temps d'accord amoon na fi temps ñi lay jaajëfal bu baax waaw euh, Papino euh, styliste modéliste gars yi ne nañ dafa am euh, nu mu tudd ci warante bu ñu doon am sànq parce que man li ma xam ci Papino moo di Papino créateur ak styliste des Yaay Fall et des Baye Fall nga ne ma non yow tu es le créateur le styliste des stars Papino foo féete non boo nee Papino création. Mhm. ku xam Papino xam na ne ci côté yëre Baye Fall lañ ma xamee. Mhm. à cause de Carlo bi. waaw. waaw mais peut-être yi dañ ci yokk bagaas yi. Mhm. ndaxte xam nga Baye Fall yëpp ay star lañu. ah Baye Fall yëpp nag ay star lañu. muy Baye di Yaay Fall. léegi ku dul Baye ku dul Yaay Fall dool star. non star du question ne da nga nit ñi dañ la xam ak yooyu yëpp mais dangay ngay da ngay différent ngay gis loolu. d' accord kon Ophéline kon Ophéline mi fi jóge léegi bokk ci moom du baay Fall du Yaay faal kon bokk ci star yi. moom ku ko dégg xam na ne Yaay Fall la. ah déet Ophéline moom du Yaay Fall de. non Yaay Fall. Ah. Yaay Fall na nga xarañ rek. na nga xarañ. tey jéggale tey jëllale. jëllale kon nag baax na kon léegi yow da ngay bañ de Baye Fall et de Yaay Fall. non man Baye Fall laa. kon papilo fu ñu lay dëkkale. fi may dëkkale mooy Baye kon d'accord nga ni que Papino styliste créateur de Yaay et de Bayfal. Fall. loolu nangu naa ko mooy numéro 1. Moy numéro 1. Mom la la wax na le star bo gis Bayfal bo boo gis star la. d'accord léegi ci léppam. léegi numéro 2 bi moy lan. non numéro un la. numéro 1 rek la. Légui kon ku Bayfal Baye Fall ku dul Yaay Fall dundee woo pour xel xalat sol euh, production Papino Papino création. non non non non non non Papino bëri na ay variété ah yow li nga wax nag eh, franchement ya ngi bëgg wax ben di wax ben euh ben chose ak contraire dañuy laaj rek euh, Tidiane mi ci digital bi mu jallalé modèle yi comme ça euh, auditeurs yeeg internautes yi mën koo gisaale Papino gis naa ni tamit xarañ nga lol ci ci suñu gaynde yi parce que gaynde yi ba ñu jugee ca kan dem palais bañ ñu leen di recevoir palais lañu salon ya ko ñew defena waouh waouh waouh waaw di profito tiens mhm. à remercier le président fédération sénégalaise de football Augustin Senghor moi ma une chance boobu encore mhm. euh, di nuyu waa Gorée yëpp mhm. ndax man ku ma xam-xam à ne tamit jaar naa euh, ma permettre ma chance ñëwal Lions yi muy Augustin Senghor di remercier remercie Amadou Barkadia ak toute la famille Saint-Germain mère Anna fa yi nekk Gorée boo gisee loolu nag euh, c'était seen coupe d'Afrique bii passé bii passé waaw voilà léegi nag yàlla dimbali woon ma mhm. ma gagné marché boobu mhm. euh, du sama xarit te du sa lenn mais yàllaa la ko jagleel rek mu am mhm. ndax boo xoolee ne ci ñett fan lundi lañ ma jox marché bi ne ma kaay jël euh, mesure yi waaw mardi bi nga am tolof tolof. nga am tolof <laughs> <laughs> mardi bi nga am mais mercredi bi. Uh-huh. yàlla dimbali na ma. waaw ci kattanu sunu borom. Uh-huh. yére yëpp pare plus de cinquante tonnes. waaw dañu ñaw yére yi la ñu programme woon. Uh-huh. après le grand Baye Fall. waaw Aliou di ko di ko ñaanal yàlla réussir ci. liñ ko jox. liñ ko jox waaw borom. moom xam ne ñun ñëpp ñu ngi seen ginnaaw. en tout cas jeex na mu ne mbubb yi duñ ko ñëw ba pare te du am tubéy dëgg la léegi ñu woowaat ma ne ma papino léegi il faut mu am tubay. léegi nag da ngay dem jëliwaat mesure tuba yi mhm. léegi nag mu nekkoon loo xam ne vraiment diisoon na lool mhm. mais yàlla dogal na ne ba génn nañ ci ndax euh, le président Augustin Senghor dafa ma ne ma Papino mhm. xam naa mën nga lii boo mënul la ko jox la ko gannaaw ci suñu borom la gannaaw tolof tolof ya nga wala lu amoon parce que bii paa gis nañ ni dam <laughs> lu amoon boobu lu amoon boobu waaw non non non boobu ça veut dire peut-être lii dal nit lay ma dal uh-huh. peut-être yéeg naa scooter uh-huh. boobu dama jugee fi ma doon ñëwee di dem pour defe di flocage yi di dem uh-huh. añuwaale mais après ma yàlla dogal ma daanu ci scooter ma damm mais teewul teewul jot nga yeggali commande bi mais li ci gën a grave mooy dama dem hôpital xam nga dama musoon def accident avant boobu ci nga dëkk <laughs> da ngay yenn yoo xam ne day andi tolof tolof yeeg <laughs> ah. gàllankoor yi da nga koy bax non Papino da nga koy bàtte nga tey tuuti. non sant yàlla sant yàlla. Mm-hmm. comme maa ngi am mbëkk wërë moom alhamdulilah. Mm-hmm. ma dem ñu ne ma mm-hmm. noo dammoo. ma ne major maa ngi koy remercier waale moom tam major hôpital Dantec euh, ku ñuy wax Roqaya moom tam daf may jàppale. moom moom mention spéciale. ñu ñu jël ma. Euh, fixeel ma tànk bi defal ma lépp. moo mhm. metti woon na trop nag. mais mënu ko woon bañ a dem imaginer nga tey jii ñu war a recevoir lion yi. waaw boobu mayo yi ñëwagul woon. Mhm. léegi nag ñu toog ñu dem pale kii sol yëre bi. kii sol beneen yëre bi mu def désharmonie. jeex na ma ne noo mun munti def kàttanu suñu borom. Mhm. même bu may.

stylisme bi nag moom euh, mun nañu ne ñaw bee gën a dox Sénégal. ñaw bee gën a dox. waaw ndax nit ñi dañuy jaawale stylisme. Mhm. ak ñaw. Mhm. maanaam styliste ak tailleur. merci. styliste mën na bañ a doon tailleur. voilà tailleur itam mën na bañ a doon styliste. voilà d' accord léegi nag boo xoolee ne par exemple ñoom. ñoo mhm. bokk benn kër. Mhm. mais appartement yi mun na bañ a. mën na bañ waaw ñoo bokk kër rek waaye bokk ñuy néeg. merci mhm. moo ngi mel ni mason bi. ak euh, architecte bi. bokkul. léegi nag mais ñun ñoo bokk ndey ak bàyyi ndax kii moo yóbbu kii kii yóbbu kële. waaw léegi nag boo xoolee na ñaw bi moom. Mhm. macha allah. Mhm. ndax ñawu Sénégal fi mu ne nii moom sant yàlla ndax boo xoolee ne. Mhm. même étudiants yi ñoo ngi dugg si ñaw bi. d'accord. banques yi ñoo ngi dugg si ñaw bi. kon nga xam ne ne ñaw bi moo ngi développé wu ndax boo xoolee ne fi ne tu vois ay modèles yu extraordinaire ngay gis tout le temps tout temps ci internet beeg yooyu yëpp. di ñaan yàlla yàlla na yokk euh, yàlla na. indi gën a indi xéewal yu bare bare bare bare ba Sénégal fi mu nii kenn ku si nekk am nga looy am looy def looy def waaw voilà euh, yaa ngi wax ni que modèle yi bëri na gis nañ ni que temps yi wax bi Euh, mi ngi def euh, yu kenn xamul euh, yu jéggi daayoo maanaam da ngay gis ku jël tey jii par exemple jean pacheco wax nga gis ku jël wax bi kase ñaw ko ci yére tubaab maanaam par exemple kenn xalaatul woon wax nga def ko combinaison combinaison ci tissu tubaab yi lañ ko doon gisee ci ci ci yeneen genre tissu mais pas ci wax wax bi dañ koy jël léegi pàcce bogolan pacheco kook lépp est-ce que yow yaa ngi utiliser wax bi wala yan tissu ngay gën di utiliser voilà je ma la tailleur bi mhm. mais stylisme bi boo xoolee ñun dañuy chance. ñu mhm. ci euh, festival mhm. sur le plan international. ak euh, euh, boo ci ëpp ci ëpp fashion priorité. d'accord. mais nag Sénégal dañuy dañuy dëpp. Mhm. ñoom au lieu ñu kii vaccin bi peut-être yi ñoo ngi gën a mais dañuy ëpp li ñu ciy ëpp li ñu ciy ñëw mooy jippir bi dentelle. Mhm. Euh, brocaille loolu la ñuy ëpp favoriser mais sur le plan international boo xoolee fashion week yi défilé yi am. côté étranger. Euh, ñoom ñëpp pratiquement vax yi la ñuy la ñuy la ñuy ëpp lu ñuy favoriser boo xoolee les musiciens comme Rihanna ñoom ñëpp. dañuy xool ne yéen ak ñoom Beyoncé gis nañ leen ñoom itam ñu dugg ci ñu dugg ci wax bi. ci vax bi la ñuy la ñuy def. Mhm. boo xoolee li Côte d'Ivoire ma def naa fa dem naa Adjamé def naa Cocody. Mhm. Euh, Treichville.

Euh, Inde yuy jóge Côte d'Ivoire yuy jóge feneen ak feneen ak feneen ak beneen mhm. mais léegi ñu li ñu doon dimbali mooy pour vax bi am fi à cent pour cent ndax sénégalais li ñuy utiliser vax dafa bari mais dañ koy importer. te importer boobu arrangé wuñu ñu fi amaatoon euh, benn industrie parce que coton am na fi. coton lépp am na fi.

boo nee xam nga tey jii nañ waxante dëgg. Mhm. ñëpp bëgg émergence. tout à fait. boo xoolee képp ku ci nekk bëgg ngaa tekki. émergence bi tekki laa koy. Euh, voilà léegi imagine nga tey jii bu société yi tijjee woon. Mhm. comme ñu doon defar wax ak ñeneen ak yeneen ak yeneen mais Sénégal day gën a dox. day jëm kanam sax tey indi nañu bitigu chinois yi ñu ne tailleuru chinois yi fi war a ñëw jam ñaajo. Mm-hmm. mais loolu lan ñaata emploi lañ mën a dugal. mais suñu mbokk tailleur yi ko. parce que ñu yóbbu woon leen foofu moo leen gënal te moo gënaloon sax ñoom ci seen jëm bopp. nee naa la wax jooju Papino euh, maa ngi doon wax sànq collection bi nga génne woon ci nu mu tuddati festivalu Gorée bi festivalu lan la woon. waaw boobu dama nekkoon nag ak sama yoo xam ne ñoom dañuy ñoom ay Girl in the Youth. mannequin yu dajaloo nekk benn. Mhm. ñu leen di wax Total Events. Mhm. ñoom ñoo organisé woon euh, Fashion Week euh, Cap Skirring Fashion Week. Mhm. ñoo organisé waat Gorée Fashion Week. léegi nag ma leen ciy jàppale mais boobu dama nekkoon le 14 passé maa ngi woon Belgique. boobu dafa amoon tam élection Miss West Africa Belgique. boo xoolee ne collection boobu laa indiwaat euh, Gorée Fashion Week. moom la ñuy gis instant yi nii. muy jàll ci ci live Facebook bi. voilà voilà léegi nag boo gisee ne yooyu yëpp. da ngay gis ñun Lisa. Mhm. tey jii gis nga saison saison fashion week di mhm. partout dans le monde. mais nag moom laa lay wax xam nga tey jii boo nee papino papino papino am na ñeneen ci ginnaaw trop. Mhm. mais dama bëggoon gars ñu gën leen a yokk doole. gën leen a jàppale. naka. nan lañ leen di nan di état ko remercier. ba fi loo bàyyil état. non mais état mënuñ ko bañ a wax xam nga ndax lan la. Hmm. ñoom ñoo ñu diriger. ñoo hmm. ñu jiite. Hmm. mooy sunu papa ñoo nekk ci kanam. dañ leen di ñaan mais euh, amul lenn lu leen di teg ci loo xam ne ay détails la. boo xoolee ne tey APDA. ASAPEX. Euh, ak beneen bi ki ñuy wax COSOMAC. Euh, ñooñu ñëpp dañuy jàppale. Mm-hmm. comme foire yi am. waaw comprendre nga. di leen permettre ngeen di exposer waaw pour ñuy exposer di ñu mm-hmm. jëndal ay stand yooyu yëpp. Mm-hmm. état dama bëgg mu jàppale leen ñooñu noonu gën leen a yokk doole. ba waxuma la foire rek. mais fashion week yi ci boppam ñuy dajale styliste sénégalais yëpp comme tey jii bu ñu ne Angleterre am na. gars yi dem. Euh, États-Unis ñu dajale ay styliste yóbbu leen ñu défilé mais pas foire.

mais est-ce que styliste sénégalais yi tamit ñi ngi def loo xam ne egg na hauteur u ñiy def par exemple euh, Paris Fashion Week wala ñiy def New York Fashion Week ñu mën faa egg ba ñu gis ni que liggéey bi ñu def rafet na ba ñu mën a egg foofu ñu mën leen jël ci seen Fashion Week. xam nga lan moo leen di réeral yéen des fois da ngeen di jàpp ne lépp dakaar la yem. man waxuma Dakar de. non non non non dama ne Sénégal. Hmm. lépp loo gis dañuy yaakaar ne Dakar la yem. d'accord est-ce que xam nga moo wax la dara am na ay xale yu xarañ yoo xam ne boo leen fekkoon tey jii Kaolack. Hmm. sama dëkk fi ma dëkk. Hmm. mbala nga dem Thiès. mbala nga dem Ziguinchor da ngay gis ay boy yu ndaw dañuy jàng stylisme mais ñaata école stylisme moo am Sénégal. am pagaille. école de stylisme moom am pagaille ute naa ak man sama jamono bi nga xam ne école de stylisme benn fi amoon. mais tey jii ñaata défilé ngay dégg Sénégal Adama Paris bu la rombee ban mooy am

yóbbu leen CCF centre culturel français. Mhm. ñoo doon njëkk a défilé. Mhm. après balaay défilé bu mag bi. Mhm. mais loolu ñoom état daf ko doon a yokk. may leen budget teg leen. avant maman Collé ala avant mama Collé mama Oumou Sy mi ngi ko doon def. mais doon def euh, six mois de semaine internationale de la mode. mais ci sa kana. mais ñooñu nag la ñu war mais ñooñu tamit da ngay jàpp ni que Papino ñooñu dañu def seen temps la ñu waroon def seen waref def nañ ko pour wane jeune styliste yi. yéen ci seen bopp ñi nga xam ne yéen bot war a boot ñi ci seen ginnaaw yéen a war tamit associé wu di def ay défilé di len invité ñoom ñuy participer avant ngeen di def seen grand défilé. parce que ñooñu bu ñu leen jàppalewul woon. tey du ngeen egg fi ngeen egg nii xëy na. merci kon yéen itam boot leen ñi ci seen ginnaaw. merci mais loolu ñun. Hmm. ñooñu noonu ci seen bopp. Hmm. comme ma lay wax ne le maman Oumou Sy. Hmm. maman Collé Ardo. maman Juma Dieng. Juma Dieng Diakhaté. Sadia sa Gueye Mayoro Gueye. Bira Diouf. Pape Mbaye Diouf. ñoom Modou Thiam. ndax xam nga ne tey dafa. mais ñooñu noonu tey ñun ñu dem sans ñoom. Mhm. ndax ñu xalal yoon bi may ñu yoon boo xam ne comme ma tey ji par exemple nga ne Youssou Ndour. Mhm. ne Pape Diouf ne Wally Seck léegi nag nañ ne ñoom Youssou Ndour nañu dem yoon yoon. wan néew ma nañu dem de. dama ne ginnaaw ñu xàllil nañ leen yoon bi yéen ba ngeen jàll yéen itam dangeen di gën a yokku dangeen di gën a yokk yoon bi ndax may xale yi ci seen ginnaaw mën a ñëw egsi itam. Mm. bu leen toog di xaar toujours naan noo ñi defal nañ ñu dañu war a xaar ñu gën ñoo defal gis nga ku la defal as tuut yow jéemal jël astuut boobu nga yokk ko ngir dafal ki ci si ginnaaw papi non téléphone bee ngi sonné xam nga lu ñuy def déedéet balaa ngaa yeggali nañ bàyyi tonton daaw da jox ñu auditeur boobu noonu xëy na yow la war a waxal asalaamaaleykum ki ci ligne bi dafa mel ni euh, waaw dafa dem ñu yeggali waxtaan bi ma ne loolu bu ma la ko bëgg waxee mooy xam nga mhm. ñun mhm. dañuy débrouiller wu sans moyen mhm. sans état ñuy banque suñuy propre moyen la ñuy demee financement waaw voilà amuñu financement autofinancement sa propre financement ngay demee. <laughs> léegi nag boo xoolee ne tey jii tey ñu ne Papino ñu invité ma Italie. Mhm. man maay dem ak sama xaalis su bopp. may mhm. def samay collection bopp. Mhm. dërëmu jàmbur dugg ci. mais tey jii boo xoolee ne da ngay dem. sonn trop. fekk fa yeneen réew yoo xam ne état leen jàppale. seen état ñoom ñoo leen jàppale. seen état moo leen dimbali teg leen ci condition très bien. boo xam ne ba ñoom bu ñu demee. couleuru seen dëkk lay yóbbu man ñaata yoon laa dem ak ak couleuru Sénégal yaa ngi dem ak couleuru Sénégal kenn jàppalew la waaye mérite bi yëpp ci yow lay jóge mais mérite bi mu jugee ci man mérite boobu ci yaw lay jugee léegi bul jàpp ni yow parce que jàppale wuñ la parce que état deful lii ak lii te doo def sa wareef parce que bu fekkoon da ngay def ñeneen ñi ginnaaw état jàppalewu ma man j'y vais pour le Sénégal kon damuma damay damal pour sama bopp xam nga loolu defoo ko mais Lisa est-ce que xam nga ma wax la benn problème képp koo gis ku yenu drapeau Sénégal di génn di dem. Mhm. demaloo sa bopp demaloo sa yaay demaloo seen waa kër ndax tey jii tey jii. boo mooy li ma la wax Sénégal ngay demal voilà Sénégal booy demal Sénégal. Mhm. léegi tey jii euh, jàppale bi ca war. bu ñu mhm. ko defalee. mais da ngay kontaan bi relax léegi nag. yanu sa yeneen rakk ak sa yeneen mbokk jël leen yóbbu leen wan leen yoon bi ndax yoon bi gudd na te man moom soxoruma ku ma wan yoon bi comme ni sama mag yi doon ma koy defal mhm. comme ni ma la limal léegi mhm. ay ñoom Pape Mbaye Diouf mhm. Modou Thiam waa Galerie Payenne yëpp Galerie Payenne teg ma ci yoon bi ba mu mun a am ñame am fit Mm-hmm. kon tey jii da man am na ñu bari ñoo xam ne maa ngi leen di wan ni ñuy demee foire yi ñeneen ñi ñoo xam ne ne nan laa leen di wan mais est-ce que Papino entre yéen yéen a ngi créer association association des jeunes stylistes par exemple est-ce que yéen ngi def ay mouvement pour euh, jàppale jàppale seen bopp ginnaaw état jàppale wuñ leen gis nga man je suis contre ñi nga xam ne dañuy toog naan dañuy toog di xaar état état lii état le mais ku la jàppalewul te nga mën a demal sa bopp lu leen tere organiser wu ngeen jàppalante yéen ci seen biir mën a jàppale ñi ci seen ginnaaw mais loolu am na. am na am na ñu fi nekk ñoo xam ne ne. Mhm. am na des les tailleurs jeunes am na mhm. yeneen ñoo xam ne am na fi. am na mhm. organisation yu bari yu fi nekk yoo xam ne ay stylistes yi yeekoon organisé wu nekk benn. tailleurs yi nekk benn. ñooñu ñu bari maa ngi leen ciy remercier gërëm. mais Papino ci boppam. dafa man damaa bokkul ci benn association. lu tax bokkuma ci benn mouvement. xam nga ndax lan la. wax na tey jii par exemple am na lu bari loo xam ne ni bu ma gisee sama mag yi jaaruñ ci. man duma ci jaar. comprendre nga. Mhm. benn ñaar Sénégal dañu nekk loo xam ne ne euh, booloo dañ ko mënul. ndax dañ boolooy doole non non te duñ ko duñ gëm à cent pour cent. ndax maanaam dañoo dëggoowul ci li ñuy woote. merci te man dama nekk nit koo xam ne ne wax dëgg yàlla bu ma gisee weex weex laay wax bu ma gisee ñuul ñuul laay wax. Mhm. ndey nag doo jël tey ji association benn trente euh, tailleur wala trente styliste ñu joxe ñetti euh, visa mbala ñeent. ñu jël ña ca gën ñañu waroon a yellool loolu duñ ko ko jox mais dañuy jël ñeneen jox leen ko ñu dem. kon loolu man yanu am nga. non yow affaire instant yi nii problème de restructuration nga nekk di wax bu fekkente ne nii que da ngeen am association association bi mu am ñoo xam ne ñi ko yilif wala ñi nekk ci boppu association bi nekk ay nit ñi compétent gëm naa ni loolu du ci am. loolu yow ban association dox Sénégal. wax ko rek. sama association man mi ngi dox. ban association sama association wu bopp la. voilà kon xam nga boobu kenn xamu ko. du man rek de de am na ñu ko xam am na ñu ci bokk am na ñu ci adhéré xam nga loolu la ñu war di bàyyi à chaque fois di dénigrer sénégalais wala di dénigrer suñu bopp du ma dugg ci lii parce que bu ma ci duggee lii wak lii moo ma ciy fekk bu fekkee ne dañuy toll ci stade boobu naan tout le temps lii wak lii moo ma ciy fekk te duñu jéem a soppi jikko yi. il faut que mu am ku ci dugg. non uy ma xam nga yow papino xàmmee nañ la ak salaam yi nga xam ne yow bu verte na nga ko waxee sànq bu verte

ñun bokku nañ ba tay di xool. nga ne dëdul dëgg kon la yow la ngay wax moo dul dëgg. non noo non dëdul dëgg mooy xool yi du ñu ànd nekk benn foofu lay waxee. ñuy xàccandoo di dóorandoo. tey jii xol yi mënta ànd doon benn la papino da ngay gis ci benn kër. mu am yaay doom ñu bokk ndey ak baay tey du tee des fois ñu ñu ñu am ay problème problème mënut ñàkk waxtaan gi lañu war di def. bu ñu toogee waxtaan ku ci nekk wax ni lii ak lii lay def même bu ci amee ci biir saako bi ay pombiteer yu baaxul wala yu ndëpp mënta yàq saako bi yëpp bu ci amee benn papino bu fekkee ne li ngay wax dëggu na ci yow bu dee papino yaa ngi wax naan su ma demee bëgguma lii ak lii am lii bu war a dëgg jotee dama koy wax mën nga soppi affaire yi. te imagine association bu nekk bu ci amee benn wala ñaari papino mais affaire yi day changé. mais attends lan lañ la wax. Hmm. lan la Pape Diouf wax. ku muñ sa xuloo yab la mm. tey ji boo demee ci association ba wax chaque jour yaay xuloo dañ naan kii nañ ko fi génn ndax day yàq déet nee naa la bu ci amee benn wala ñaar buñ la ci dàqee itam nga dem buñ demee ba ci kanam gis ne la nga doon wax mooy doxal affaire bi dañ lay woowaat kenn du la woowaat dañuy rëy sénégalais xamul loolu a ah, déet bul ne sénégalais xamul loolu du sénégalais yépp ñoo mel noonu xam nga lu ñuy def papino 9h39 jot na hmm. dañuy bàyyi auditeur ñu déglu benn son ñu ñëwaat ak yéen waxtaan wala waxtaan bi ok léegi léegi Daouda 43 minutes yéen a ngi ci seen euh, matinal ba léegi 15 euh, minutes moo ñu dese ma leen di fàttali rek ni que ñu ngi ak euh, papino papino création laata ñoo wëyal waxtaan bi rek dañuy nuyu kii di Petit gasama moom nee na nag matinal bi bi gépp depuis les États-Unis où il est 5 heures du matin si suba ak léegi ah, ñu ngi am heure bi jot un peu partout dans le monde woon sànq am nañ benn xarit bu ñu doon déglu ju côté de Australie ñoom ñi ngi ci après midi ku ci nekk daal fa nga nekk nee naa la loxo nuyu naa la di la souhaiter excellentissime journée Seydou Sall ngi ak ñun tamit ñu ngi lay nuyu macha allah yow itam du ñu fàtte rek nuyu waale ki di Serigne Mbacke Joxane Papino laata ñoo jeexal euh, émission bi euh, année bi lan nga defal euh, suñu gaynde yi ok Lisa ren moom

te peut-être ci ñooñu ak yenn supporters yi. Mhm. moo tax ñu toog ren incha allahu rabbi moment cadre yi moment coupe du monde bi yëpp. dañuy defar ay tenues yoo xam ne c'est spécialement les lions. waaw xam nga ni. Mhm. ndax génn na. Mhm. defar nañ ko. defar nañ ko pare mais dañuy xaar. ba. ba bés bi jot daal bés bi jot. Mhm. xam nga mën nga ko génne léegi affaire yi boole ndox sorox sorox yi mais. xam nañ xam nañ xam nañ nuñ fay demee xam nañ nuñ fay demee. léegi nag ginnaaw euh, ñun euh, groupe Futurs Médias dañuy def itam euh, ci mondial bi fii nii si suñu rajo King FM danañ ami ay émission spéciale yu ñuy def Papino loo fas yéene def pour ñun. waaw man nag. ñu signé ko en direct. non non non non. dañ koy signé en direct auditeurs yeeg adduna gi yëpp déggandoo ko. voilà. Mm-hmm. man ku ma xam. Mm-hmm. xam na ne wax dëgg yàlla. Mm-hmm. RFM. TFM. King FM. sama kër la. dëgg la Malal Junior mën na ko mën na ko seede. merci. Malal Junior mun na ko seede. DJ Boubs mën na ko seede. Sidaat mun na ko seede Pape Cheikh jàll mun na ko seede. te man duma ko seede. non yow moom yow moom maag yow. à part nañ bàyyi wax jooju dama dama dama ko cabaxal rek yeggalil. dama ko cabaxaloon rek yeggalil. déglul man ak yow démb la. Mm. <laughs> loolu moom. ah jeex na kon nag jeexal na débat bi. mais nag. Mm-hmm. je te dis. Mm-hmm. Mm-hmm. man pare naa. pour taxaw jàppale leen. ci matchu Sénégal yi. tout à fait ci matchu Sénégal yi lañuy ñuy wax. te li ma leen di signeel mooy la may ñeneen ñi. yéen bu dee King FM. Mm. ñaata journal lay am. moo euh, ci football bi. ñaata matchu Sénégal mooy am. non ñaata journaliste ñooy kii. ñaata journaliste loolu après dinañ ko waxtaanee en aparté. waaw léegi yow yaa mbugg signé loo contrat bi dama lay wax rek non dama lay wax nit gars yi dégg ñu ñu seede ñu xam ni que Papino il est prêt à accompagner King FM ci mondial bi maanaam match Sénégal bu amee ci mondial bi Papino dana ñëw taxaw jàppale waa King FM ak ay euh, couleur du Sénégal ñu door suñu olé aller le Sénégal ca kaw ca kanam moo tax nag ma bëgg xam ne ñaata ngeen ndax doo ma wax tam yow ba ñu génne ma loolu après la Papino bul yàq loolu après la newoon naa la mag yow ku ñu waxtaanee jubóo non déedéet signé nañ ko ni que ci euh, kii bi nu mu dëddati ci mondial ba Papino dina fi nekk dina teew am nag ñun ci kàttanu borom incha allah waaw ñu lay jaajëfal bu baax di la remercier ci teewaay gi nga teew bi fi xam naa ni yeewu fajar gi métti na la lool. Mhm. noptambule ba nga doon. <laughs> del teel a tëdd del teel a tëdd waaw. <laughs> et euh, ñu bàyyi la rek nga tàggoog auditeurs yi bu fekkee ne dafa am koy nuyu itam ñu bàyyi la nga nuyoo ak waaw. Euh, kontaan naa trop trop mhm. trop. vraiment bu ñu doon am euh, opportunité yi chaque jour. Mhm. dina baax ñu mun a ndax boo xoolee ne mode du Sénégal li ma la ko wax fi ñu ne nii mhm. dafa développé wu développement bu garaaw boo xam ne ne nañ ñu jàppale mhm. di ñaan gën ñaan mhm. état nee nañ moo ngi liggéey moo ngi ciy def di ci yokk doole comme li ma la wax sànq mais doo bàyyi état dama ne moo ngi ciy may ñoo ngi ñuy bàyyil mais ñoo mais nag état bu defee lu baax nañ ko wax <laughs> moo ngi ñuy may doole <laughs> d'accord def APDA uh-huh. li ma lay wax APDA uh-huh. ASAPEX uh-huh. ak euh, ñoom gars yooyu yëpp ñoo ngi mm-hmm. may doole pour ñu mun a jàppale stylistes yi di jàppale artisans yi. ci ginnaaw uh-huh. loolu laay wax. Euh, mais mais mais. d' accord <laughs> d' accord. d' accord uh-huh. léegi nag loolu bu amee nañ ñu gën a jàppale gën ñu yokk. Uh-huh. gën gën a mun a romb fi ñu nekk. di gërëm ñëpp ñëpp ñëpp képp ku jaar ci antenne bi ak képp kuy déglu Kik FM. di nekk xam papillon. maa ngi lay sant. di la gërëm. di gërëm waa galerie Payenne ndax man fu ma am ak lu ma am. galerie la galerie la waaw amee di gërëm sama mag. koo xam ne ne mun jàppale na ma trop ñuy wax mbay diouf am sama magu bopp ñoom abdou diop ñoom dongo joxaane di gërëm sama waa kër nag ndax tey jii euh, bu ñu nee diw baax na ñu est ce que mbokk yaa ko wax man nag samay mbokk moom mooy waa kaolack mooy gaa ndax aw ma dul kaolack ndorong angal saadi d'accord kon ñu leen di nuyu waa angal saadi angal voilà angal saadi angal saadi ko ñu déggoo ko ñu déggoo. ñoo ko moom. yéen a ko moom. voilà di nuyuwaat bu baax suñu yaay ji fa toog. jeex na. Mhm. di gërëm ñëpp di sant ñëpp. Mhm. vraiment sama mag yi ñoom Thiendé la ñoom a Dieng. Mhm. ñoom Dem gaa yëpp. maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. voilà loolu laa amoon lu may wax di nag wax na ne am na ay fashion week yoo xam ne ñoo ngi pare mais peut bu dégg jegee. boo ma mayee chance bi. mais amul boo ma mayee chance bi da ngay ñëwaat. da ngay ñëwaat yow ci kër gi nga bokk. voilà di wax nag ne képp ku bëgg. Mhm. muy styliste yi. Mhm. styliste beeg muy euh, couturier beeg yëpp. Mhm. koo xam ne ne bëgg na xam nan ngay def. bëgg na nga xam nan ngay def pour bokk ci fashion week yi. sur le plan international. ak ñi la war a mën a jàppale yooyu yëpp. Papillon est disponible. d'accord naa la won yoon bi teg la ci yoon boo xam ne ne peut-être di nga mën a. véhiculer sa yeneen yére yoo xam ne en dehors du Sénégal. pour mun ko exposer feneen mbala pour mun ko xool feneen je disponible à 100 pour cent boobu. d' di fàttali rek ni que ñi nekk ci Facebook bu ñu tàppee Papino création rek dana génn. bu ñu keneen ku la bëgg a jot fu mu lay jotee. Euh, keneen bu mu mun a jot mun nga ma jot ci WhatsApp bi 77. 722. Mhm. Euh, ay yow xamul numéro am. <laughs> non non non non non dama am ñaari <laughs> dafa am whatsapp bi am beneen boo xam ne c'est personnel. waaw 722 bi 722 bi du boobu. bi mooy mooy whatsapp bi. 955 30 voilà whatsapp bi mais sama beneen numéro bi 722 bi moom moom. nañ ko bàyyi noonu rek di la jaajëfal bu baax euh, Papino waxtu wii jot na di jaajëfal itam auditeurs yi nga xam ne euh, depuis 7 heures du matin ñi ngi ak ñun may nuyuwaat rek ñi mujj egg si ki di oral ji euh, awe dewu ay waay defe naa ni turu jàmbur di massacre naa ko de oral ji maa ngi lay nuyu di la gërëm bu baax di nuyuwaat itam ki di Mati Tomba Georgette Chavez du ma leen ay Aïssatou Yama Diouf Sega Ndoye le Cheikh Diouf Mage Modou Fall euh, Lamine euh, c'était votre émission euh, Morning King on se donne rendez-vous demain ce sera la troisième incursion de la semaine n'oubliez pas comme j'ai l'habitude de le dire vivez chaque jour comme si c'était le dernier un grand merci à tous qui étaient du côté de la réalisation je pense à Daouda je pense à Tidiane merci aussi à Fall Papi Fall hein, et à Maestro Cocodine c'était nous on est parti à demain et excellentissime journée.